mu doon ubbi goo xamante ni gu ràññeeku la euh, gis ngeen sànq ba léegi kilifa yi ñu ngi fiy ñëw ci biir kilifa yooyu itam ñu am ci koo xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko euh, jàngale kenn dootu ko xamle ci kër Cheikh Abdoul ngir taxawaay bu am solo bi nga xamante ni euh, mi ngi ko fiy taxaw rawatina ci wàllu waajal màggal gi bi mu nekk coordinateur bu mag boo xamante ni bu am yitte la ci taxawu liggéeyu Cheikh Abdoul Ahad bi di Serigne Abdoul Ahad Ndiaye Jolof nekk itam koo xamante ni ab taxawaayam yàgg na lool Euh, organisation itam yaakaar naa ne li mu ci man macha allah euh, tax na tey jii mu ñëw seet si woon ñu ci euh, exposition bi baas bi ñu am occasion nag sëñ Blaat ginnaaw ba ñu la nuyoo di la sargal bu baax a baax ci taxawaay bi am solo bi di ko rafetlu ban yenn kàddu nga ñu mën a wax ci tolluwaay yi màggal gi yow mi nga xam ne yaa jiite commission organisation bi. wala nga bokk ci kàngam yi nga xam ne yéen a ko jiite euh, fan ngeen ci toll euh, daanaka benn fan moo dox suñu diggante wala ay waxtu sax mënees ne mënees naa wax ne ay waxtu moo ci des euh, fan ngeen ci tollu liggéey bi fan la tàmbalee ba tey fii ngeen ci tollu nii ak lan ban gis-gis nga am ci exposition bi nga xam ne commission scientifique bi def na ko ci. jërëjëf sëñ Abdoulahat Ndiaye ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh al di am mbégte nag ci li ñu yàlla boole. muy loo xam ne sëriñ Sidi Mbacke yàlla na fi yàgg di xalifa Cheikh Abdou boole ñu ci liggéey bi jox ñu it cër boo xam ne ñi mu ci jiital muy sëñ Mahmadan ak sëñ Amsatu ak sëñ Abdou Lahad Ka ñoom ñëpp wóoluñu ñu ànd ak ñoom nekk ci seen ron di liggéey ci comité d'organisation bi di ko coordonné ñu doy loonu ñu ci wóoluñu ci naam lu ñu fekkoon seen waajur itam muy Cheikh Abdoulaat bu baax ma eh, ñu nekkoon secrétaire am ci suufu ci ronu sëñ Alaaji Modou Mamoun Niang eh, wax dëgg yàlla di liggéey ci jamono yi mu fi nekkee kon suñu fekkee jamono yooyu entre soixante-quatorze ba yàlla def waxtu wu fi jógee tey sans borom dimbale ñu ñu fekkee it sëñ Sidi nekk fii di organise màggal gi ñu nekk tey ci 33e édition bi euh, wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ko tàmbalee ca CRD ba nga xamante ne ñun ak yéen ñoo ko ànd waxtaan ak gouvernement bi euh, ñu wax suñuy soxla ci màggal gi na am muy loo xamante ne dafa munta ñàkk ci ab ànd diggante temporel bi ak spirituel bi eh, ñu di ko def eh, te waaye Sëriñ Tuubaa moom mënal na boppam léppam waa këramit mën nañ nañ seen bopp lépp waaye dafay aada rek loola ñu di ko def boobaa léegi nag ñoom ñu ngi koy saytu def nañ fi évaluation seet lañu waxante woon ak ñun lan lañ ci def ak lan moo ci des eh, boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi waxtaan ak jëflante ci yi ñu waxoon yëpp ñu ciy góorgóorlu ci diggante waa seneleg waa santé waa commerce ak waa euh, ñi ñëpp ñi nga xam ne daal euh, maanaam seen volonté feeñaloon nañ ko muy service d'hygiène muy eaux et forêt de ñoom ñëpp feeñal nañ wax dëgg seen yéene ñu ngi leen di sant di leen gërëm kon ba fii ñu nekk daal amaguñu dara loo xam ne am njàmbat la ci par rapport ak li ñu waxoon Euh, li ci desit ci comité d'organisation bi li ci ëpp solo mooy sëñ Sidi mettre na ci suñu disposition lépp loo xam ne dana tax liggéey bi egg comme ni mu ko defalee commission culturelle euh, li nga xam ne nag moom mooy li li nga xam ne man mi nekk mag ci seen biir euh, ma saytu ko mooy commission culturelle bi indi nañ ci màggal gi ay rénovation yoo xamante ne ay innovation yoo xam ne wax dëgg yàlla comité scientifique bi def na lu tax ñu feeñal sëriñ bi ak njàngaleem ak itamit lépp loo xamante ne def na ko réaliser na ko ci Touba te ndaw li nga xamante ne eh, fekkewu ko woon mën cee jàng ni ko monsieur maire waxee léegi eh, mu doon loo xamante ne war nañ ko partager ci mboolem réseaux sociaux yi eh, mboolem également école yi ak institut yi nga xamante ne ñoo nekk ci àdduna ndax la voie salutaire maanaam lii defar àdduna di defar Sénégal mi ngi ci discours yi sëñ Abdou yi mi ngi ci doxalinu sëñ Abdou Lahad bi ak li mu jàngal maanaam nit ñi te xam ne buñ ko doxee lépp lu ñu bëgg maanaam dinañ ko am loolu nag danañ ci sant comité commission culturelle bi vraiment parce que kenn ku ca nekk feeñal nga ci yéene joo xamante ne wax dëgg yàlla li tax sëñ bi jox leen ouverture bu toll ni bu mu leen jox eh, budgétiser leen pour que lépp lu ñu bëgg a def mu jox leen carte blanche c'est parce que ñoom ñoo ko wone loolu nag lu mat a xam la te itam lii ñu fi def am njàngale la moo xam ne gouvernement bi bu fekkente ne bëgg nañu da nga di avancer dañoo war a jël lii nga xamante ne maanaam def nañ ko fi maanaam yër ko partager ko ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom lañ ko séqal mu wàcc ci école yi dégg nga ñu ko jàngal xale yi pour que demain dégg nga Sénégal li ñu bëgg mu doon ci wàllu l'islam bëgg ko mu doon ci réew mu tedd mu tekki alors ñu mën koo am te fii rek lañ ko mën a am ndax sëñ Abdou Lahad nekkoon na koo xamante ne du làmbatu waaw li muy def lépp daf koo daj ba noppi maanaam bëgg nit ñi jëriñoo ko kon ñun ñëpp nañu góorgóorlu di sant nag ñu sëriñ Sidi eh, di ko ñaanal mu yàgg fi ci gannaaw sëñ Mountakha ndax ñu ngi liggéey liggéey bu am solo liggéey bi nga xamante ne université bi sama borom dogal na sëñ Mountakha mi ngi koy eggale maanaam la ca sëñ ba gisoon ba yebaloon sëñ moodu Mamoun Niang ak Alaaji Jili Mbay ñoom dégg de ak sëñ Samba yi dégg nga de ak eh, waa Hizbut Tarqiyyah ak sëñ Cheikh Mbacké lépp fi la ñu fekk ñu dem indi téere yi mu créé dégg nga lii mu fi créé mu bibliothèque bi ñu visité léegi wax dëgg yàlla kenn amutoon xalaat ci ne réalisation bi li muy jur ëllëg loolu nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fee mu nekk yàlla nañu yàlla taas ci barkeem mbooleem ak ñi nga xam ne ñoo ko fi wuutu te ñoom it def liggéey bu nu mel mottali ci liggéey ba nga xam ne semboon na ko te ba tey jeexut kon jërëjëf sëñ Abdou Lahad ñu ngi di sant di leen gërëm jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Lahad euh, am nañu mbégte lool ci leeral yi euh, wax dëgg yàlla résumé nga euh, màggal gi tàmbale ko ca CRD ya ba fii ñu toll nii di ñaan suñu borom nangul ñu ñu yegg ci bis ba ak jàmm yàlla yàggal fi bu baax a baax sëriñ Sidi Abdou Lahad ak mbooleem ay rakkam itam waaye commission bi itam muy commission organisation yàlla suñu borom yàggaleen fi ndax wax dëgg yàlla màggal gi am na ay yokkute yu bëree bëri yoo xamante ni grace ak euh, comité bi la kon yàlla yàlla gën leen a dëgëral bu baax a baax gën a itam euh, feddali kóoluteeg sëriñ bi ci ñoom ndax euh, seen yitte mooy liggéey Cheikh ndax Cheikh Abdou ñëpp ko war a liggéeyal waaye nag ki ko ki ko war a gën a liggéeyal mooy ki nga xamante ni ni nga ko waxee say waajur ak moom la woon tey jii yàlla suñu borom dogal ñu fekkee jamono sëñ Sidi nañu liggéeyal Sëñ Abdou Lahad ci Serigne Sidi ba mbooleem li mu bëgg wala fi mu bëgg màggal gi yegg fa mu yegg fa ci kàttanu yàlla ak doole Serigne Touba jërëjëf hmm. baal ma xëy na wax waxaat ndax ñi nga xam ne ñu mat a fàttaliku lañu mooy euh, sëñ Youssou Diop ak lu ko jiitu sëñ atu Atoumane Diagne hmm. mi nga xam ne moo jiite woon Hizbut Tarqiyyah ci xam gi ñu xam ne ñoom sëñ Abdou daanaka moo leen tabax ba noppi ba noppi dëgëral leen ba noppi nag jëmbat leen muy isbu tarxiya dégg nga de tey Youssou Diop di ko jiite mettre à la disposition dégg nga de du comité lii nga xamante ne mooy bâche bi mu taxawal pour comité d'organisation bi ak commission culturelle eh, ba noppi yëkkati seeni moyen ak seeni alal def ci ñoom xam nañu kan mooy sëñ Abdou Lahad ak lan la leen sëñ Abdou Lahad defal ba tax na tey yoonu murit eh, munuñ fa a ñàkk waaw bu ñu leen amutoo nit danañ leen wuti waaye nag ñu ñëw ak seen caractère ñëw ak seen pas-pas ñëw kenn munu leen a jëriñoo ku dul Sëriñ Tuubaa kon loolu euh, gouvernement daan def bu gisee lu mu lu ko jaaxal mu jéem a seet nu mu fexee ba tas ko waaye ñoom ka ko doon jéem. Colin sëñ Touba def nag defante nag moom ba ba mu fiy jógee xamul sax nu mu fi jóge te boobu daf fay jógee it ñu fàtte ko kon tey ci tey bu fekkente ne ñoom am nañ seen mat waaye boo xamante ne li ñuy liggéey ci yoon wi kenn mënu leen a bund xatal da nga de ba jóge leen ca fa ñu nekk ñooñu it danañ leen sant di sant itam daayira doomi dongo yi ak petit fils yi ñoom tamit sët yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla def nañ ci liggéey yu màggal gi loo xam ne lu ko yokk la kon nag ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen sant sëñ Abdou Lahat ñu ngi lay sant bu baax a baax jërëjëf. waa kay jërëjëf. ay murit xam ne sëñ Touba rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def.